baax a baax yéen ñi safo El Vision Médias man sister Eva nak ma ñëwaat ci benen dimension ñu ngi fii ci jàmmagal si Kap Mbaaw rawatina fii ci tali Jaara ci marché bu ndaw bi ñu fekk fi koo xamantene jàngale katu alxuraan la en même temps du ñaan ci wàllu alxuraan muy Serigne Ibrahima Diagne alxuraan Serigne Ibrahima maa ngi lay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soxna Awa ñu ngi lay fay waaye waaleykum salaam wa taala wa barakatuh di nuyu tamit mbokk yi nga xam ñoo ñuy déglu ñëpp ci seetaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala boole ñun ñëpp faj suñu aajo barke alquranul karim waaw tey sëñ Ibrahima El Vision dafa ñëw seet la parce que El Vision lu ci li nga xamante ne dafa neex askan wi moom di koy def euh, dafa ñëw tey seet la ñu gis na yow jàngalekatu alxuraan bu mag en même temps euh, di ñaan ci alxuraan lan moo waral sëriñ Ibrahima Diagne ngay dàqalantee sa bopp alxuraan. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Subhanaka la ilma ila ma alamtana Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mbokki ni setan yip Ke dinu deglu Nyigilin dinu yu Te jelin siyari Baha baha baha Wah nga Ibrahim Ujain Al-Quran Lalu Madna kham lol alhamdulilah ni nga xam ni nooy moo yàgg am rek ginnaaw bi nu ñaari way jur yu tedd jure ñu ko wax Serigne Sine jaañ ak soxna Xadijatu Gajaga soxna Xadi Gajaga moom way juróom mooy sëñ Ibra Gajaga sëñ Ibra Sala moomu ak way jur sëñ Mor Mbay Sise mi ni dégg ci njaarim ñoo bokk ndey ak baay sëñ Mor Mbaye Cissé mboolem ñu jàng alxuraan ci réew mi boo jëloon téeméer bi teg juróom-ñeent fukk bépp moo leen jàngal alxuraan yàlla dogal bi ñu jure it ñu juri tedd yooyu fi ñu tollee ci maca dal fi ñu jaarale doomi soxna yëpp ñu jaar ñu fa yóbbu ñu jàngi alxuraan njaareem leen jàngi alxuraan kër sëriñ Moustapha Guèye daara moo taqaloo ko sëñ Mor Mbaye Cissé yàlla dogalit li doomi soxna di xam ginnaaw bi ñu ko xamee ba noppi muy alxuraan ak xam-xam bi nu dellusee ñibbisi nag way jur woowu ma la waxoon di sëriñ Sine Diagne nga xam ne moo ne woon imam ratib sam-sam deux fii ci caaro yi daal nuyu nag euh, gën a nàmpatalaat ci alxuraan mooy jàngaloo ñu xam-xamu asaraat bii ñuy def wi it samp loñu daara ñi fi samp daara 1995 ba 2010 nak ñoo yaral bop suñ njàng mi suñ bop yalla dogal mu bari lool xala yo xamni wacc nañ fi alquran ci ay goor ak ay jigen am ci ñoo xamni sax ñi ngi fi ci sam-sam yóbbu leen ba seen ëttu ñu tàmbalee baqara ba nasi bi ci benn bis ñi ñaari bis bi lol amé nak ci la ñu bari suñ lay wo sax dañ lay wo señ Ibrahima Diagne alquran tur wo nak moy dem ba mu jagg fepp di mujj di wax ñu wax señ Ibrahima alquran lol moko macha allah yéen a ko déggandoo yéen ñi nga xamante ne yéen ñi sakko El Vision Médias muy sëñ Ibrahima Diagne alxuraan ku ne Njaareem rek xam ne dëkku Serigne la dëkk alxuraan la rawatina ki nga ki ko jàngal di doomu uh, Serigne Adama Gueye ku ne xam na ne Serigne Adama Gueye ni mu demee woon ak Serigne Touba macha allah kon xam-xam bi day daal di wér lool. Mm. Euh, Serigne Ibrahima tey El dafa ñëw seet si la ñu war a waxtaan ci wàllum gàllankoor ak cat. parce que mm-hmm. ku ne xam na ne instant bi gàllankoor ak cat euh, dafa dafa lëmbee réew mi daal. ki nga xamantene dafa am galankor wala mu am chat nan nga koy jappalé wa alhamdullilah wax nga deug xana ñu yok ci rek ni bëggu ñu won sax afeñ lu bari bëri waye dañ ko muju sakku ci ñun nak ma ngi waxtaan sama ben kilifa fan yi mu xamal ma ni ñi xam de bu noppé bañu xamul mëna nax nit ñi kon ñi xam dañu am bakkar kon kon soo ko manee nga dem dimbali ci doomu adama yi ndaka jekkit sax xam-xam bi nu yor dañ koy dimbalee defe naa ni bu noppee dana am ñu nu gis suñ jëmm danaan xam lii ñu wax lu wér la mooy daanaka dimbali doomu aadama yi mu ëpp doole ci sunu liggéey duñ ci sonal kenn nga wax nag ñaar yoo xam ni lu lu lu sonal nit ñi la muy gàllankoor gàllankoor nag dafa bëri fu muy tàmbalee nit ki dana ko dal sax ci biir biirum ndeyam eh, nit dana juddu tamit ci àdduna ñim dëkkal ci àdduna teg ko gàllankoor gàllankoor bi dal nit ki ci biiru ndeyam boobu ni way jur bi di ak baay bi lay doon bu juddoo léeg-léeg dana am ay nga xeetu gàllankoor yu ne ci moom wut dara mu koy jafeek bëgg dara mu koy jafe waaye bu yàlla dogalee mu daje ku ku yàlla dimbali mu xam mën naa dem fa roo ya nekk tuubale leen euh, wala bu laajee sarax bu mu ko war a def loo mu def ko euh, ba boobaa yàlla mën na caa sukkandiku baaxal jëmm jooju wala mu jox ko li muy wut loolu moo ci njëkk bi ci dess moy galankor yi ci aduna amna ci yo nak nit sa morom nit wala jinne mo la koy tek moy li ñuy def ni eh, japp nit liggéey ko bamu yaq eh, wala iñaane la te iñaan ci la nit ki di sukkandiku ba yaqal nit ki ci walu liggéey galankor yooyu nak incha allahu rabbi kep ko xam yalla dogal na mu mu tege ci moom ak gàllankoor bu mu mën di doon alquran yàlla da ko fi indi ngir mu nekk sifaahu ci doomu aadama yi wa nunazzilu min alqurani maa huwa sifaun wa rahmatun lil muminin yàlla ma wàcc alxuraan pour mu nekk saafara waaye nekk tamit yërmande ci jullit ji kon gàllankoor bu mu di doon alquran mën na koo saafara te incha allahu rabbi gëstu nañ mbooleem xeeti gàllankoor yooyu nit ki bu ñëwee tamit am na matukaay yoo xam danañ ko ci xoole ba xam ni kii gàllankoor sàngam moo ko dal su boobaa danañ ci taxaw ngir dimbali ko ci gàllankoor yooyu incha allahu rabbi ay uh, waaw loolu mi ngi aju ci nit ki nga xool ko uh, boo ko xoolee rek uh, su dikkee ndax tur yàlla yàgg nañ ci loolu maa ngi fàttaliku 97. lan tàmbuli di yëngu ci tur yàlla ak léegi yàlla may nañ ci loo xam ne buñ jàkk buñ nee jàkk nit ki rek xam nan lan mooy gàllankooram xam xam nan lan mooy saraxam du aaju sax ñuy bind waaye buñ nee jàkk nit ki rek xam na lan mooy gàllankooram xam nan lan mooy saraxam xam nan lan loo xam ni suñ ko bindee ci alxuraan jox ko yàlla dana saafara gàllankooram googu incha allah rabbi ci kàttanu yàlla. ñëw leen fii ci Samsam 3 ngeen fekk fii Serigne Ibrahima mu jàppale leen ci euh, wàllum gàllankoor euh, wàllum cat. Eh. bëgg naa nga dikkal euh, ak cat ñoom ñaar du ñu soree hmm, cat lu doy waar la. cat mën naa jàpp nit ba buy dox sax di dem tànk yi di sutaanti mu mel ni kuy soox fekk na cat rek moo ko jàpp. al aynu xaqun wa lisaanu xaqun. yentu saa salaam moo wax ni ki yàlla yónni woon ci ñun moo wax ni làmmiñ dëgg la bët dëgg la da ngeen suñ suñu sëriñ sax seexul xadim xaadim rasul di ci di ci ñaan di ci muslu suñu borom wax naan wakun mu'izan lana min sarchi xasadin ma sarri fammin wa sarri ayni yallaahu wa sarri shihrin wa sarri xalqi insihimu ma jinihim wa saawati summi yallaahu xam nga lépp loo xam ni sëñ Tuubaa dem na ba jël xalimaam di laawanhu di ci ñaan yàlla musal ko ci euh, loolu dëgg la kon lu wér la mooy cat ak bët cat nag mënta fànq dogalu yàlla waaye mën na faa jiitu yàqu cat dogal bu yàlla cat mënu koo fànq bu yàlla nammee ci nit ci am téeméeri junni masalan du ko du ko du ko fànq téeméeri junni waaye day jiitu bis bi mu ko war a am taxaw fa di ko xaar moo tax yonent saa salaam ni won de len neub mbir yi ba mu bi maanaa ñu dig la dara nga tok fenn rek ni man de warna am nangam ginnaaw suba koku daal ni ah ah diw mo rëy wërseuk léegi nak bis bob mom dang ko jot ndax dana la ko jox waye waj der otoom euh, romb ben xalé euh, dama misal rek daal di daal dal ci kaw xalé bi dalé ci kaw xalé bi ñu jël ñëw yóbbu hôpital mu ànd ak moom ñu ni yaa koy faj mu ni waaw ñu daat koy envoyé message bi mu xool muy téeméeri junni ñu xool li ko war a faj mu nekk téeméeri junni ak ñaar fukk xam nga daa jël téeméeri junneem yooyu def ca ca sensé wut ñaar fukk junni ci poosam def ca léegi ñëw na waaye amalu ko njariñ noonu lay def nag ci ci sa liggéey bu la ci jiitoo da ngay dem ba am liggéey ba toog mu def ci gàllankoor léeg-léeg mu mu jiitu nit ki ci alalam lu mu am fajoo ko wala lu mu am faje ko njabootam euh, cat noonu lay def lu doy waar la euh, ci jamono yonent bi sallallahu alayhi euh, am na ko masa mu nit muy sangu rek ci ci ci kii yu yarax yooyu mu wax ni kii yaram wi moo rafet rek mu daal bi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi ñu wax ko mu ni ana ku ci wax dara ñu ni am na ko wax dara mu ni wax leen ko mu gàllaxandiku def ko ci ndab jox mu gàllaxandiku def ci ndab jox ko mu naan ci sangu ci la ca des daal di jug mel na meloon kon kon euh, cat dëgg la euh, bët tamit dëgg la nit ki nag mën naa fexe ba mucc ci euh, am na ci yoo xam ne ci alquran incha allah rabbi képp koo xam ni loolu rek mooy ay gàllankooram ay yàqu-yàqu yi yéppam ci cat la jóge suñ ko xoolee ba xam ko mën naan koo dindi ci moom ba noppi ci mën nan koo defal loo xam ni cat dootu ko jàpp bu soobee yàlla ndax cat mënta ñàkk ci nit ndax nit faaw mu sol mu rafet nit faaw mu am ab oto faaw mu am kër faaw mu am daraja di toog ci mbooloo ñëpp di wax ñëpp di ko déglu léegi nag kon bul bañ ku la wax ak ku la xool waaye da ngay fexe ba mucc ci yooyu rek da ngay fexe ba ku la xool du la mënal dara ku la wax du la mënal dara ku la liggéey tamit du la mën a jàpp rabbi cat daal lu lu lu doy waar la dañ koy dindi ci nit bam set ci nag waaye nag lu doy waar la nag lu doy waar la. <laughs> bu rëyul semmal. waaw waaw waaw cat bu rëyul semmal mooy liñ la wax léegi eh, day jàpp nit sax ba ci bàmmeel bëri yaa rob boo dem ñuy rob nga dégg ñu naan kii naan defal nii kii naan defal nii ba far du jublu penku waaw day rob boo dem ñu ñëpp ñu tekk ba nu dugal ko ci kenn du wax. koku chat fek ko ci bamélam waye chat day japp nit ba buñ koy rof sax bamé du jublu du jublu xibla bu rayul semal mooy maanaam bu rayul semal manam day dem ba nit ki tok fim tok jang am diplôme yi mu war am yépp ba paré du am liggé chat rayu ko waye semal na gis ko xamné day mel ni doon jigen mel ni jigéen ba mu dakk leen gën leen xay ma ngeen siluise manam yor sax alalam te mënta am jëkkër bi muy ndaw rek lañ ko wax ay diw mii de bu jugee xam naa ni fu mu dem mooy njëkk far loola topp ko ba far du am jëkkër am ñeent fukki at waaw loolu nag dimbali nañ ci ñu bëree bari moom dimbali nañ ci ñu bëri eh, ba mujj ñoom ñëpp ñu mujj am jëkkër ñu bari ñoo xam ne tey dana ñu gis tey incha allah ci kàttanu yàlla ndax lu ma la wax rek def naa ci ay preuve ba noppi lu ma la wax rek lépp lu ma léew dégg ma wax la ko ak lu ma waxagul rek def nañ ci ay preuve ndax diggante bi yàgg na diggante bi yàgg na te numéro bi du soppeeku tur bi du soppeeku dëkkuwaay boo ñëwee fekkuñ fi incha allah ci kàttanu yàlla. comme ni leen ko waxee woon rek El du taay di jëkk yi nga xamante ne moom moo neex askan wi ñu ci dox ñu ngi fii ci Tali rawatina marché bu ndaw kër Serigne Ibrahima Diagne alxuraan euh, Serigne Ibrahima. dégg nañ léegi nga wax ci wàllu euh, cat ak euh, gàllankoor li nga xamante ne nit ki loolu bu ñëwee ci yow nga saafara ko. Hmm. yéen ñi safoo El Vision Médias defe naa dinañ ñëw seet la. Hmm. Euh, dama gis tamit nga ñu créé ay groupe WhatsApp. dañu hmm. ci jàngale alxuraan ay kilifa yu mag nekk ci. nga di leen tàggat ba def ci ñoom xam-xam. lu waral loolu ah, mm, baat bi mooy wuyu boppam rek mooy xam-xam xam moom xam le Eh, ndax xam-xam boo fi gis rek te ñu mën cee jot ah, dafa da li yoon saasa la ma wax ni astafura sayyidina aliyu inna diinuna mabniyun ala naqli laa ala munasabatul xaqli sunu diine ji dañ koo tabax ci ay tuxal maam waaye tegewul ci xel maanaam góor mooy jàngal góor góor jàngal góor dégg nga ma ne la bi ma jàngee ba ñëw sama baay dama ubbiloo daara ma jàngale alquran kon xam-xam boobu dañ ko war a jàngale danoo jugoon tamit jàngi xam-xamu asraar ba xam ko kon ay nit war nañ ko mën a jàngalaat ñu xam ko waaye nag euh, du caagin ku jug rek ñu jàngale ko nag asraar li yàlla wax ci paaka rek moo ci nekk fii fiihi baxsun sadidun wa manaafiun linaas euh, dafa am njariñ waaye dafa am lool dégg nga léegi bi may wax wàllu liggéey nit bi ñu koy def tamit ci asraar lañ ko defe asraar nag moo tënk lépp léegi sax nga dégg ku naan kii day faj ci wàllu euh, garab kii day ñaan ci wàllu alxuraan ñu bëgg leen a séparer waaye asraar moo tënk ñëpp baat bi mooy asirru sirru mooy ki faj ci alxuraan sirru lay jëlee ci alxuraan kii faj ci ndox seru lay jëlee ci ndox mi kii faj ci garab seru lay jëlee ci garab gi am sax ñoom ci xeer la ñuy faj yooyu yëpp su booloo nag moo nekk jamu taksir bi nekk al asraar am ñu ko tubaab di waxee baat boo wax benn ak baat boo wax lu bëree bëri mooy asraar boobu nag moom lay waxtaane yow nii moo tax bi ñu ko jàngee ba xam ko eh, ba am ñu jot ñu xaw ñu xam leen koo xamal léegi nag ci la nag ginnaaw xam-xam léegi li ci gën a ubbeeku mooy euh, média ñu ubbi ay groupe yoo xamee ni euh, ñu ko yellool dañ cay nekk ñu ñu leen koy xamal di leen di leen di leen ci jàngal su ko defee euh, di ci def ay émission yoo xamee ni yu am solo doon yoo xamee ni ñi nga xam ni am na groupe yoo xam ne nii fiq lañ leen di jàngal waaw lu fiq maanaam nooy defee ba sa diine mën a yéwén nooy jaamoo yàlla Euh, noonu noonu la yoote ubbeekoo tamit ñu ciy jàngale lu jëm ci wàllu asraar nit ki tamit xame ci su amee ay problème ni mu ko mën a lijjantee wala ku ko jege su amee problème ni mu ko mën a lijjantee ndax suñ borom euh, noonu la defee àdduna da gis sax koo xam ne dafay jàngal euh, médecine ba xam ko waaye du nekk docteur waaye dana xam nu ñuy pikiire dana xam nu ñuy jëlee garab xam nga ni kooku ci biir néegam la toog di ko di ko jëfandikoo waaye am ku ko jàng ba noppi nag choisir nag moom nekk médecin moom dem ci hôpital ba mën a joxe garab mën a pikiir xam nga da nga dégg li may waxam déet defee am na boo leen ko jàngalee ba noppi ñoom dañuy toog ci seen biir néeg seen biir kër di ko jëfandikoo am ñoo xam ne nag dañ koy def ngir kun gisati man la cee dimbale comme nii ñuy def nii incha allah ci kàttan yàlla. ñun groupe whatsapp yooyu ñun gëstu nañ ko ba am ci lu ñu leer ñun xam nañ ci dara euh, Serigne Ibrahima ba léegi tamit euh, dama gis ne da jàngale benn xam-xam boobu nag euh, day xam-xam boo xam ni képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci asraar war nga koo xam ndax nit su dikkee ci yow. ngir nga ngir nga man koo ñaanal ñaan gi yàlla euh, euh, nangoo ko ni nga ko bëggee li ci gën a gaaw mooy da ngay xam biddiw da xam biddiwam dafa am juróom-ñaari dafa am yoo xam ne nit ku nekk am na ci biddiw biddiw yooyu am ay manaasil yoo xam ne ci lañuy fanaan loolu day xam-xam bu sore sore waaye li ma la ko mën a xamal daal mooy nit ki bu dikkee ji yow war ngaa xam lan mooy biddiwam ci juróom-ñaari biddiw yooyu mooy samsu xamar marix atarid mastara sahratan suhal nga xam ci moom ban la ci moom ci biddiw yooyu biddiw bu ne fa am temps de minit yu muy sax ci jaww ji su fekkee xam nga ni moom nangam mooy biddiwam lu meloon noonu tey ñu ñëw ci dimanche ñu xam ne samsu mooy biddiw bi tey diw miy ñëw ci man samsu mooy biddiwam comme 7 heures rek dang ko war dak ngir ñaanal ko 7 heures 0 minute wër heure bobu jant bi di fekk moy and ak bidiw bu mu fekkale legi nak bo baye nak ba waxtu mu wara sax jeex te ñaanaloo ko ci mom do ko ci mën ñaanalat da ngay baye ba juroom benn bidiw yépp ñëwaat ba sax ba dem ndax bu ci ne bu saxé saxee waxtu rek minute rek day dem mom day ñëwaat bu dikkaatee nga xam ne biddiw sàngam ñëw na loolu la mag ñi daan wax tungul maanaam jël ci paxum jinax def ci ndox xale yi nekkoon ci daara ji xam nañ ci dara sama classe gi buñ jëlee ñaaree póot def ci dangay jël aw yat di ko xaar mu génn waaw kaña di ko xaar mu génn gis nga bu ne bëreet rek da ngay daal di wër bopp bi mooy xam nga kii lan mooy biddiwam xam nga ban heure la war a sax ci jaww ji léegi da ngay toog rek nag di ko xaar fekk na soxla bu ñor la nit ku am këyit yu ko jaaxal la wala muy lijjanti procès bu ko jaaxal mu bëgg jot di ko xëccoo wala mu mu mu mu mu muy mu bëgg daal am dara loo xam ne lu jafe la léegi da ngay da ngay toog di ko xaar bu egsee rek nga jël ismu bi nga ko war a ñaanale diir boobu mu fi sax donte benn fatiha doo nga jàngoon boo ko walee yàlla nangu ñaan googu doo tax xam-xam boobu ñu ñu nit ñi soxla ko di ko gesu, wut sax ci ni nga ko wara a ci sa weer buy feñ yooyu ni nga ko wara a ci tey di warna nis taw bi waxtu sangam la wara a nga xamni non nga ko wara a xamee bokkut sax lii ma ci ni lii ci walu asra bi dem nga xam koy xam xam gi moy tax so ñaanal nit ki daal faaw nga xam ban biddiw la mom ban tabian la bu ko fe nga man ko te ñaanal dégg incha allah rabbi macha allah comme yéen a ko gisandoo yéen ñi safoo El Vision Médias Serigne Ibrahima euh, expliqué nañu léegi léegi li nga xamante ne mooy wàllu cat ak gàllankoor Serigne Ibrahima ba xam yow ci wàllum cat ak gàllankoor rek nga yam wala am na yeneen euh, faj yoo xamante ne da def. waaw loolu maa ngi la koy junj ci biir wax léegi euh, di la xamal ni loolu danga koo tànn tey rek génne ko waaye mbooleem nii dal doomu aadama lépp rek. ndax fi may wax ak yow ni sax ci riyada la nek da nak ni def ay xalwatu tëju ay ay xalwatu def ay riyada di ñaanal ay nit ci ay procès yu maga mag ndax eh, li ñuy def di mom kep ko xamni ne yaa def li nga wax war naa leer ndax am na ñu lay gis am ñu xam ni nga lay gis bu baaxa baax jëm ji nak daawul feñ waye bu feñe tay ñu bari buñ ko gisee nan ni ki kat yag nañ ko gis sax ci tante muy def conférence di jàngal nañ ñi seen diine loolu dafa bokkaale ci biir métier bi mooy orienté nit ñi di leen xamal kan mooy yàlla mooy yonent bi salaa salaam rawat na kan mooy si Ahmadul Xadim Xaadimu Rasul euh, kon yu bari mi ngi fi dañ cee génne lii tey rek waaye te ju nit am tamit soo dikkee boo na ko waxee te yàlla dogal euh, mu ne fi euh, waaye nag bu dee nag doomu aadama moom lii doomu aadama moom lu ñu ci nit wax rek incha allahu rabbi fekk na fi loo xam ne gëstu nañ ci loo xam ne danañ ko ci jàppale te buñ ko ci jàppalee dana gis ci bu soobee yàlla waaw incha allah. ok macha allah Serigne Ibrahima comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne euh, dañuy am jàngoro. Mm-hmm. Euh, ñëw tay jii nga seetal leen war leen génneloo ay sarax. Mm-hmm. parce am na ci ñoo xamante ne xëy na am-am bi moo ko doon matewe. Euh, sarax bi ci ci selon nit ki ñëw. sarax bi di génnee ah. wala da ngay leen di jàppale te yàlla tax parce am na ci sëriñ yoo xam ne da dem ci ñoom ñu laaj la loo xamante ne sa doole du ko mate ah. euh, ba yow li nga bëggoon saafara sax du saafara da ngay obligé toog sa kër waaw nit ñi euh, danoo wuute euh, wax naa la ci biir tàmbali bi nag ñun dañuy dimbale ñun yàlla dimbali na ma ba 97 bi ma tàmbalee ñaan ak léegi ku ma jëflanteel sama xarit nga maanaam képp koo xam ne jëflante naa ak moom su ma xëyee suba ba ngoon dana ma woo su ak ñenn ñi maay tuddi seeni doom ñenn ñi may takki seeni sëy képp ku ma jëflante rek sama xarit nga loolu yow loolu yàlla defal na ma ko ndax sama baay dama yaboon ni ma nit ñi buñ la déggee ba bëgg laa gis gis la ba bëgg a jaxasoo ak yow buñ jaxasoo yow buñ la jàppee sa jikko lay doon Euh, nga xam ni kon euh, ko tamit lu am solo la ci doomu aadama rafetal sa jikko ba képp koo jëflanteel dootu la bàyyi euh, kon nit ñi tamit danoo wuute ay ay ay jëf xam nga li tax tey ma nekk ci riyaada war a woor ñetti fan soxla su ko jar lay doon léeg-léeg ma tëju ci bërëb ñetti fan wala juróom-ñaari fan boobaa tamit soxla su am soxla su fa am soxla su tax nga def loola loolu boo ko ak ki nga xam ne dafa ñëw rek am gàllankoor wala cat bëgg liggéey bëgg ay këyit nekk bitim réew te mënu koo am ah wala saa ko déposé du ci jot kooko dafa am yoo koy teg rekk jàppale ko ci ci yàlla tax kóllëre moo ëpp doole lépp lu man doon jëflanteeg nit ki ba noppi mu des yéen ñaar la ko defal mu gis ko mu jàpp ci yeneen loxo indi ko ci yow moo ëpp doole foofu laaj nit ki lu dul jeex ci aajoom du faju mu yàlla na ci yàlla musal ñi ngi ñaan yàlla daal képp ku fi ñëw xam ne dama koy ñaan saa bu ma xëyee képp ku aajoom natt faju bu mu ronu sama buntu néeg bi loolu dama ñaan suñu borom ba képp ku ronu sama néeg sax ñaare damay damay damay damay fexe ba jëflante yow ndax xam naa ne boo génnee it ñaare sa aajo day faju am na ci dafa am benn bi sama benn xarit ci ñu may àndal ci sama gone yi may àndal mané ko eh, nah, eh, bu la nit waxaté lu jëm ci walu kunté ci bërepp ndax non lañ ko mëna waxé bu bu leen ma wo téléphone na ñëw ba egsi waaw ndax ndax ndax suma xasse wo téléphone rek bu ñëwul tamit aajom ah, day faju day gën suma ko déggé sama nopp rek yërmëne ji ma ko yërëm sama xol mom mo koy may li mu bëgg damaa mujj ni bu bu ma wo nan ñëw ba exi mun xasee xamante bu amee li mu bëgg dana dana dana la mën a jàpp ndax nit ñi ñoo mel noonu lu leen di yomb rek duñ ko mën a fonk dëgg-dëgg waaye daal li ma la mën a gàttale loolu mooy nit ku nekk aajoom lay tolloon bu dee sarax nag sëriñ bi la koy laaj te di ko jëfandikoo ñun boog lañ ñu jàngal ci xam-xam te ñu koy jàngalewaat mooy nit ki saraxam moo koy génne waaw bu doon million sarax bi waru koo teg sa loxoy serigne kon ñi lay laaj naan la indi xar wala indi nagal yooyu ma génne sarax. ko def da yow dañ yow lañ wara jox sax yow ya jël sa xaaliss bopp dem jënd. bu fekke sarax fekke sarax bo wara a la. su fekke nak ñaan gi mo laaj gatt wala mo laaj fasu naaru góor ni ko mag ñi daan defee sama maam daana ko def man. Hmm. dañ li dañ cee judd eh, su sunuy way sunu maam ba sunuy bàyyi ñëpp li mo nekkon seen metti euh yalla dogal bu fekke ni ni façon naaru nga ci wara laaj mo wara a nekk weexal gi du teg dara ci xaalis day jënd façon naaru indi jox la. mo moo koy jënd indi. waaw am naa am naa ñaan goo xam ni ñetti téeméeri nag. waaw ak fukk ak ñett mooy weexalam. ñetti téeméeri nak ak fukk. ak ñett ak mooy moom mooy weexalam man ñemewuma koo def te am ma ñeent fukki ak juróom amul kenn koo koy defal te du falu buur. du falu buur. waaw faaw mu nekk buur. Ah. buur du du président rek buur man ngaa ne sa biir néeg ba noppi nekk buur mooy lépp loo bëgg da koy am te doo sonn te doo sonn euh, ñu daan falu buur lañ ko daan defal. waaye nag xam nga euh, ni ma la ko waxee daal mooy daal ndimbal daal moo fi jiitu moom ba noppi moom léeg-léeg ma duggal nit xalwatu ci du fay dara waaye la ca kanam nag bu waa nag mooy dàq lépp mooy dàq lépp euh, daje naa ak nit maali di ko ñaanal xam naa mën naa dem ba sitaan ma sax du ma tudd turam mu feebar boobu mu ngi jógee kawet ñëw fa di lijjanti ci wàllu or ni feebar ñu ñu jëflante ñu ñaanal ko laaju ñu ko dara yàlla dogal ba jamono ñew moy mu jek jek wo ma telephone dal di lu am solo jox ma nga xamni ci la kër gi ma ñëk am ci la ko miré nga xamni lam ma jox ba ma ci miré kër sax dess na def na ci lu bëree bëri nga xam lolu lolu lolu def lu baax mom moo koy mën tax may nit doom adam man ko am insha allah ci na yalla ndimbal daal moo fi jiitu moom layeen lu ci doog am nag doog ci waaye ndimbal moo ci jiitu incha allah. macha allah yéen a ko gisandoo yéen ñi sakku El Vision Médias euh, Serigne Ibrahima Diagne alxuraan moom ci lu dul mbiru yàlla ñoru ci alxuraan rek lay yëngu. yéen ñi nga xamante ne da ngeen di safoo El Vision Médias boo leen amee ay laaj yoo xamante ne euh, bëgg ngeen ko ko laaj wala ngeen am jàngoro boo xam ne jaaxal na leen ko boo leen bàyyee seen commentaire rek dinañ ko ko eggee parce que chaque 15 jours dinañ ñëw fii defal ko émission euh, boo leen bëggee ko contacter nag da ngeen di composer ci numéro yi muy 77 532 94 22 wala nga def 76 532 94 22 ñu ngi leen di jox rendez-vous euh, tous les 15 kon xam naa alhamdulilah rabbi alamin dellu sant yàlla bu baax rek ñaanal sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla gën a yokk aw fanam wéral ay cëram ak mbooleem xalifa généraux yi ne ci réew mi yëpp rek yàlla yokk seeni fan ci wéral seeni cër te def ci réew mi jàmm ñaan yàlla subhaanahu wa taala réew mii di Sénégal yàlla def fi jàmm def ko ci réew jullit yëpp kon ñu ngi leen di dàggu rek ba baneen incha allah ñu bokk ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu faj suñu aaju ñun ñëpp أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المحيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخل الأعداء كل داي أركب سنجبك القرآن